élection législative maa ngi nuyu mbokki Koungheul yëpp maa ngi nuyu mbokk yëpp yi nga xam ne si ñi ngi. ñi ngi nekk si di xool seen télévision bii nga nekk mooy xibaaru bambouk point com euh, ñun nag waa coalition wàllu lañu ñoo ñëw tey fii ci Koungheul parce que dañoo nekk ci campagne électorale xam ngeen ko coalition wàllu am liste bu mag bu nga xam ne si président Abdoulaye Wade moo ko jiitee nekk ca madame l'honorable Awa euh, Wade Sarr député itam Mamadou Lamine Diallo bokk ci list bi ñu ñëw fii ci Koungheul euh, di dox ci campagne électorale ndax dañoo am coalition boo xam ne si daf ñoo lëkkale ak yeewi askan wi ci lëkkale googu nag coalition yeewi askan wi ànd ak wàllu Sénégal dafa tax ba ñu jël ñun suñuy suñuy nit dugal leen ci liste yeewi waaye yeewi jël seeni nit dugal leen ko li ci liste yi wàllu ñu séddoo Sénégal ni dëkk sàngam waa wàllu ñoom ci ci ci këyitu wàllu lañ fiy watee ni dëkk sàngam ci bulletin yeewi lañ fay watee Koungheul nag tombe ci fu nga xam ne si dañ fay war a wotee ci bulletin yeewi nga xam ne si Fatoumata mii moo ñu nekkal ci liste bi tête de bi nekk El Hadj Ndiaye fii ci Koungheul list Yewwi Wallu El Hadj Gueye mooy tête de liste bi Fatoumata nekk ko listière am boo gisee list boobu kon ay listu lëkkale la kenn koo xam ni ci wàllu la bokk ak kenn ku nga xam ni si ci Yewwi la bokk fii nag ci Koungheul dañoo bokk waxtaane ni nañ ko def ci bañeeru Yewwi loolu tax nag ñu ñëw fii tey gis ngeen ni fi ñëwee bu ñu euh, yàlla def am lu rëy lu am Koungheul ñu ñëw daje fi ak coalition Yewwi ba nga xam ne si message yi ñu doon joxe ñu ak ñoom ñoo ko bokk joxe lañ fa wax rek mooy wax bi fépp fu nga xam si ñun dañ fay dem te fekk mu nekk bañeeru Yewwi nga xam ni foofu dañ faa war a wote ci Yewwi dañu naan ñun waa Wallu dañoo ñëw pour wax suñu nit ñi ni leen ba fii da ngeen fee war a wote ci bulletin Yewwi Askan Wi loolu moo ñu indi woon fii ndax nag accord bi ñu def dañoo jàpp ni ñun dañoo am nangam wallu dafa am nangami voix ci Koungheul yeewi askan wi am fi nangami voix bu nu boolee li yeewi amoon ak li wallu amoon buñ ko tegee ci taabal ji ñoo dañuy daaneel Benno Bokk Yaakaar kon boog loolu moo tax ñu ni ni leen ko Sonko doon expliqué sànq nu nit noonu lañ ko waxee fépp affaire bi affaire sincérité la bu nu sincéré ñun ñëpp ku nekk la nga war a def nga def ko. fu ñu nii wàllu lañ fa war a def ñu def fa wàllu fu ñu ni yeewi lañ fa war a def ñu fa war a defee dañuy am majorité bu yaatu nga xam si dañuy jël député yi ci département yëpp ci loolu rek la ñuy mën a li yaakaar ak li ñuy wax ak li ñu dugal ci affaire bi ci loolu rek lañ koy mën a amee. lan nga wax askanu Koungheul ci enjeu bi moom mooy Koungheul ak Saloum ak fépp ci yem fu ci nekk am nañu problème yu nga xam si il faut ñu am assemblée nationale bu jag pour mën koo lijjanti. pour loolu il faut ñoom nañu nañu won ginnaaw Benno Bokk Yaakaar te ñu jël seen carte yi ñu def ko ci ñu fu fu mu war a nekk bulletin Yewwi ñu def ko fa fu mu war a nekk bulletin Wallu ñu def ko fa su ko defee le 31 juillet ñu am ay député Wallu Yewwi am assemblée nationale bu bees mën a taxaw saytu problème réew mi ci niñ ko war a mën a saytoo ba nga xam si loolu rek moo mën a indi saafara jërëjëf jërëjëf